waaw kon ñaan dafa am ay teggin dafa am ay teggin yoo xam ne kii ñaan war na koo sàmmonteel ndax itam ki muy ñaan moo doonul ko ndaw suñu borom subhanahu wa taala nag bala nga koy ñaan da war a fexe ba set mu ngi mel na buñ nelawoon président de la république dalay accorder audience dalay recevoir ca pare ba di nga xool li nga gën a fonk nga sol ko booy dem nga teey ànd ak yar ànd ak dal woo xam ne dina méngoo ak euh, barab ba moo tax kon suñu borom nag subhanahu wa du n'importe comment nga fay demee mais danga nga am ay comportement yu nga xam ne dinga nga mën a créer un environnement favorable pour que tes prières soient exaucées bu ko defee nag pour créer environnement boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu yan méthode la ñu war a utiliser waaw bi ci njëkk mooy war nañuy fexe ba li ñuy dunde moo xam li ñuy lekk la moo xam li ñuy naan la moo xam fi ñuy dëkke la moo xam li ñuy jox suñuy njaboot yépp nekk loo xam ne xalaal lay doon lu ñu lew lay doon lu dagan mais su fekkee yaa ngi ñëw di ñaan fekk li ngay lekk dëgganul li ngay naan dëgganul fi nga dëkk itam léwu la yow yaa bloqué sa ñaan waaw moo tax euh, xaafil génne benn xadis xaafil ibnu murdawi jële ko ci abbas ibnu abbas radiallahu anhu qaal ibnu abbas nee na talaytu hadihi al aya inda annabi sallallahu alayhi يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة فقال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفس محمد بيده inna rajula la yaqdifu luqmata alxarama fi jawfihi ma yutaqabbalu minhu arbaina yawma wa ayuma abdin nabata laxmuhu min alsuxti walriba fannaaru awlaa bi maanaam ibnu abbas nee na dafa am benn bis ma taxaw ci kanamu yonent bi ma toog ci kanamu yonent bi jàng fa aaya bi yaa ayuhan naas kulu mimma fi l ardi xalaalan tayiba aaya bi li muy tekki mooy yàlla def na ee yéen nit ñi li ma leen jox ci wërsëg wu lew na koy jëfandikoo ba bu leen dem ci lu leen lewul mukk dee leen fexe bay lekk lu lew di naan lu lew di sol lu lew di tëdd fu leen lew loolu la yàlla recommandé ci aay boobu nee na Saad ibn Abi Waqas daal jóg wax yonent bi sallallahu alayhi ne ko dama bëgg nga ñaanal ma ma am ijaaba ijaaba mooy lan maanaam daal nga ñaanal ma ma am barke bu nga xam ni lu ma ñaan suñu borom subhanahu wa day nangu e bi saadu waxee loolu yonent bi ne ko ah ñaan de dañ koy waajal ci jikko saadu ne ko waaw yan jikko la ñuy waajale ñaan yan jikko mooy tax ba nit bu ñaanee yàlla nangu ko waaw kay mu ne ko bi ci njëkk mooy bokk na ci li ci ëpp solo de mooy bi lekk lu lew lekk lu lew dara ëpp ko ci ëpp ko solo ci jikko yi ñuy waajale suñ bopp bañ suñu ñaan mën a nangu daan ko maa ngi lay waatal ci yàlla yow soxna nit day dina jël benn tibb bu xaraam mu sex ko lekk ko wann ko ci biiram mu jural ko benn jàngooro bu nga xam ne ci wàllu roche maanaam une maladie spirituelle bu nga xam ne dina tax ba mu toog ñeent fukki at lu mu ñaan yàlla du ko nangu waaw nit dina am gàllankoor bu toll ne day toog ñeent fukki at lu mu ñaan wala ñeent fukki fan boobu ngeen baal ma nit dina am gàllankoor toog ñeent fukki fan lu mu ñaan yàlla yàlla du ko nangu fekk benn tibb bu xaraam rek moo dugg ci biir bi mbokk yi kon ki nga xam ne chaque jour ci lu xaraam lay dëkk kon bloqué na ñaanam verrouillé na ko ba du mën a amati. fenn fu mën a jaar waaw mu ne itam bépp suuxa mu sax yaramu doomu aadama te li tax mu sax ci yaramam mooy dafa lekk lu xaraam dafa lekk alal bu xaraam wala mu lekk riba nee na safaraa ci gën a yey te xam ngeen ne kenn du dagg ab suuf di ko lakk safara mais jëmm ja yëpp la ñuy euh, moo tax abi hurayra radiallahu anhu mu ne yonent nee na yaa ayyuha nnaas inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba wa inna allaha amara almuminina bima amara bihi almursalin fa qaal yaa ayyuha arrusulu kulu min altayibaati wacmalu saliha يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب فأنا يستجاب لذلك Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla de dafa teey dafa sell kon lu sell rek la bëgg te yàlla amul lu mu digal ma sàmba ñàpp koo digal ma demba maanaam léeg-léeg nit ñi am ci ñoo xam ne boo leen digalee lu baax dañ naan la lii daal góor yàlla yeeg gaa yu mag yi rekk ko war a mun a am déedéet mais ndekkee yàlla li mu sant Seydina Muhammad li mu sant Muusa sant ko Isa moom la sant ñun ñi ndekkee ndax am na ñaari aaya benn bi lim ci recommandé yonente yi ba ca des ci la moom la recommandé ñi nga xam ne ñoo topp yonente yi première aay bi mooy daf ne yéen yonente yi bala ngeen a ñëw di jaamu yàlla na ngeen fexe ba li ngeen di dunde na leen lew puisque bu fekkee li ngay dunde lew na la mooy tax ba li ngay jaamu yàlla dina ko nangu mais bu lewut nag li ngay jaamu yàlla mën na ko bañ nangu ñaareelu aaya bi moo xam ne yéen ñi gëm yàlla ne leen lekk wërsëg yu teey wërsëg yu lew yi ma leen may waaw euh, mu daan ne itam nit bu fen bu fonkoon wéetal yàlla ba àgg ci gàddaay këram dem tukki voyage nekk ci àll bi isolé ba tëluta sangu tëluta coiffé peñeem euh, coiffé karawam ba fu mu toll di takk di salte ndax wéetal yàlla rek tëlut a lekk tëlut a naan di xiifal boppam naan day wéetal yàlla waaye fekk li muy dunde léwu ba alal bu xaraam rek lay dunde nee su boobaa kenn du nangu ñaanam waaw kii tukki dem ci àll bi di wéetal yàlla ne day dund sufiyanke fekk alalam léwu ko li muy lekk léwu ko li muy naan léwu ko këram léwu ko dara léwu nee na su boobaa day sonn mais ñaanam kenn du ko nangu xadis boobu muslim moo ko solo moo tax daal en résumé première étape wàllu ñaan mooy fexeel ba li ngay dundee na la lew nga soog di ñaan kon étape boobu avant ngay ñëw di ñaan ngay fexe ba mu réaliser ba nga franchir étape boobu deuxième bi mooy na nga jublu xibla su fekkee li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja yastasqi fa daa wastasqa wastaqbala alqibla ndax nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu doon benn bis mos na def salaatul istisqa mooy am na ay moment opportun maanaam daal na ay waxtu yoo xam ne ay occasion la waxtu yu dal pour ñaan nga xam ne boo ci ñaanee ci lay gën a nangoo mbokk yi waxtu yooyu ci tënk mooy lu mel ni ki bésu arafa kooku occasion la bu dal ci soo bëggee li ngay ñaan gaaw a nangu deuxième occasion bi mooy weeru koor chahru ramadan weer wi yépp occasion la pour nangu ñaan rawatina waxtu wi ñuy dogal euh, troisième occasion bi mooy bisu àjjuma bis bi yëpp waxtu nangu ñaan la waaye itam am na waxtu ci gën a dal ku nekk ci diggante tàkkusaanu àjjuma ba ci timis bi euh, occasion beneen bi mooy troisième tiers troisième tiers ci guddi bi maanaam dernière tiersu guddi bi nga xam ne ay euh, quatre heures du matin trois heures du matin jàpp quatre heures ba cinq heures foofu itam loo fi ñaan mu nangu lay yomb beneen occasion bi mooy waxtu wi ñuy xadde boobu itam loo fi ñaan day nangu ak boo tollee ci sujjóot loo fi ñaan day nangu moo tax sujjóot dinañ ci wax subhaana rabbiyal aala mais bu ñu la ñaan itam baax na ñaan boo man rek ak loo man ci say soxla nga ñaan ko fi nga xam ne boo mënoon a ñaan rek yam ci baax na walla sax subhaana rabbiyal aala yi boo ko waxee nga bañ cee yam boole ci ñaan loolu itam day gën a baax hmm, bu ko defee hmm, bokk na ci waxtu yi ñuy nangoo ñaan jamono yi muy tawee jamono yi taw bi wàcc te sëbatagul foofu itam loo fi ñaan day nangu bokk na ci waxtu yi nangu ñaan diggante nodd ak liqoom foofu loo fi ñaan bu noddukat bi daaneelee ba keroog ñuy liqoom loo fi ñaan day nangu bokk na ci waxtu yi ñuy nangoo ñaan bokk yi